sell te bari ay kiraama ay doomu aadama di bàyyeekoo fu ne ngir di ko wut si ndox mi moo ngi bàyyeekoo ci bërëb bi nga xam ni Serigne Touba moo ko wàqi def ci samsam zam teg ci joxe ndigal ñu gas teen wi toll ci 80 mètres de profondeur Daaru Sara moom ndaw mi la ñu dénk teen wi ngir mu sàmm ko di ko xamle. Serigne Touba mi ngi ko sanc 1888 mooy bi mu sancee Touba ci la ko sanc waaw bi mu ko sañcee nag euh, euh, ci la euh, ndigalul teen bi fekk ko fi mu ñëw fii wàqi loxoom ba mu xóot sett ci liisaru sam-sam daal di joxe ndigal li ne nañ ma ko gasal am na lu ma ci sama borom dig bu bënnee magi taalibe yi fi newoon di gas ku aaye gas ba ci ayuk maam Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ci la teen bi bënnee bi mu bënnee nag sëriñ bi daal ci barkeelu daal di bind ci xasida ak alhamdulilahi jasiri nimati ala xuróoji maa yi xaynu rahmati maa ngi sant sama borom ci ndoxum aynu rahmati mu sell mi ma doon ñaan sunu borom ba mu may ma ko fii ci Touba defaat ci beneen xasida goo xam ne mi ngi ko tëggee wa fajarnaal arda uyoonan wajaba abdullahi wa salaatu ala lasi bihi tafi salaatu fajarta yaa rahmaanu xaynu rahmati maha salaamatin wa xayri nihma yow sunu borom gi nga xam ne yow yërëka ma bi bindal bënnal nga nu bëdu aynu rahmati bët bi nag mi ngi ànd ak jàmm wa xayri nix ma ak ay ngën ji xéewal ngën ji xéewal yi mooy booy naan ndox mi lépp loo ci fas suñu boroom dana la ko defal incha allah. ndax mi doon na lu kéemtaan day faj ay soxla di saafara ay mbir yu bari lu ni mel taalibe yi di ko séede. man maa ngi jóge ba dakaar dañ doon ut si ndax saa yu ñu amee soxla buñ ci ñaanee Cheikhul Khadim ak suñu boroom defal ñu ci jàmm bu baax a baax moo tax saa yu ñu ñëwee Touba daal di ñëw ut si ci. pour faj suñuy aajo saa yu ma soxla wala may jàng di def examen bu ma ci jëlee ñaan rek naan suñ borom defal ma ci saafara. saafara lépp jàngoro la lépp loo yaakaar mënu koo faj rek mën na koo faj naan it texe la. ku néew bu mujj saw yaram daxaleel jannat ba xayri isaab yi luñ la ci wax lu ne sëñ Abdul Ahad ci boppam waxoon na ne ndoxum aynu ci Touba. meneen ndox mu muñ la jox barkeelu mu dul ndox ay nu mu ngi mel na ne ci ca basin bu naan la. ma xoolee njëriñ li heure bu jot at mu jot bu ma dikkee barkeelu si bëgg sañ Tuuba rek te boo ko amee moom doo ko njar doo ko def dara danga koy amee rek sa yaram tàngee nga jël bu sa yaramu doom tàngee nga jël. ndox mi ndox mi saafara la danga koy denc. sa goro bu tolloo béréb nga jox ko mu naan sa doom ba yaramam tàngee nga jox ko mu naan ndox mi garab gu baax la mooy ndoxu ay nu raxmati moom Daaru Sara di ci yokk ni ndax sëñ bi xasi bayit bi mu ci defit ne asxaytanaa xayra mi yaa in yartawi saari bu xaawa xayra faw seen yartawi saa borom may na mu ndox moo xam ne ko ko naan làq nga texek adduna ak texek àllaaxira texek adduna gi mooy booy naan ndox mi te nga xam ne gëm nga ne ndox mi li nga ci ñaan mën na la ko fasal fajal sun borom na dana la ko fajal boo fi jógee it buñ la ko sottee it sun borom dana la jéggal lépp loo lépp loo defoon ah, da nga am njëggaluk sun borom incha allah وأنا أدم فؤاد سارب مني إلى أفدة فاسو بالولا عن الخلو بأغسل بها كله وإنك إسلام مفاتيح الخوب nee na boo koy naan bépp ay bu boo amoon ndox mi dana la ko raxasal bam set wécc te da nga mën a jàkkaarloog suñu borom it ba lépp loo ko ñaan mu mu defal la ko ci ndox mi wax ne it maanaam bépp xale boo xamante ne nii mi ngi naan ndox mi koo xam ne maanaam day jàng ndox mi mën na kiis mën na toqantal mën na lépp ndox mi daal mi ngi aju ci sa pas-pas ndox mi ñu duppee ko ay nu raxmati barina ay kemtaan ba tax taalibe yi di bàyyee ko fu ne ngir di ko wut si muy mag mbaa muy ndaw